Wow, quelle classe Wa fi mom rafet na di li nak lañuy wax paradis sur terre dëgg-dëgg xawma won ni lu mel ni am vraiment du nouveau à Dakar dal leen ak jamm ci Basit Imo Yeen sama mbokki tukkikat yi yeen sama mbokki immigré yi Mo xam nga ko biti rew, bëgg fo passer ce séjour à Dakar Yeen ni bëgg passer sen temps pour vider vos esprits Yeen ni nga xamante vous êtes tout le temps en activité yeen ni di wo fu ngeen noppalo. Yeen ni bëgg a fêter anniversaire ak ñi am programme séminaire dal leen ak Menti résidence Basit Imo Degen ngeen fou fu chic passer ngeen passé temps jaratul dem Basali. ninga ni nga paru wala Lac Rose xoolal suite yi mou rafete, des appartements meublés ay studio ay mini studio ay chambre simple très bien meublés et bien climatisés. chambre am salle de bain ak cuisine incorporée Basit Imo sou nou studio yi am chambre salle de bain am na itam salon pour passer seen temps sou nou suite mini studio yi mou di résidence meublée vous discret am sutura lol, équipe bu dynamique te professionnel ba noppi dañu lay defal accueil bu chaleureux basit imo mën nañu jël ay permanent dañuy jël ku bëgg passer ay séjour am mën nañu jël ku fa bëgg def 24 quatre heures waaye itam mën nañu jël ku fa bëgg def 3 heures de temps voire même 1 heure Malako la wax résidence bi dañu ko defar pour kenn ku ci nek, mën cee gis sa bopp fexe ba li ngeen di yittewoo du ngeen ko dem wuti fenen, ndax am nañu ko fi ci basit imo kaay ma wax la bo fa bëggee dem noy def adresse Magnifique ici fii ci cité croisement 22 bu Parcelles à bu doyul mungi le joko ak sunu ay agent 617 77 698 95 95 ou appelez le 77 808 20 81 bienvenue à Dakar résidence Bassit Imo file de jàmm la xoolee sama bët yi naqar ak tiis rekk a ci nekk tey boo xaaroon sama xol bi yakar bu tas nga ci fekk te ken teguñu ko kudul fayal fayal këram la jóge jëkkëram massa yag na tok fi di joy yag na tok fi di ñu kalamé nga def yëfu yaay nak faral sa dom motax man la tey ci bama gisal sama bop ken waxuma samay beutama may samay noppa ma may fayal di saaga boroom këram fayal di toroxal boroom këram dem na sax ba koy attaqué bu ma fa nekkul woon fayal pare woon na pour attaqué ci këram dégg na nag li ma ko wax man duma jur doom muy nekk sama kilifa bokk ci ci waajur yooyu di nëpp nëppal seen doom sëy lañ ko sant gisul fenn ku sëye nu la neex Jor lu la neex fayal dafa faté ne ko ñuluk sa jëkkër yaq sa doom ndax yow mi di ndayam lolu nga ko santone ndax da nga dégg man mi di bayam ma sant ko lolu fayal tek nañu gatché ba taxna man duma upp fulla lima kay wax wax na ko ci kanamu bu ko balul mom mi nga xamantene mo ñu ëpp doole ci suñu dom jooju man bàyyim duma ko bal bis nekk tay jappal na fayal na jaar ni ma jaar ni bu tera nga jógeeti ci mom di ñew ci man ma chéri li nga ma wax yépp dégg naa ko hmm. mais naa la xamal benn affaire boo yaakaaree ne yaa nekk ci dëgg yaa ngi nax sa bopp xamal lu lay wax sa sëy bii man su ko amoon damay téy ba mu dëgër na la xamal ben affaire de gis nga xalé yu jigéen yi amna ño xamantene dañ lay ñooru di la indil ay information nga koy déglu nga sa sey tas sa xel di ñaaw ñom ñu ñëw tok sa place té nga baña nga tok sey sey baxna ay magi yow ma foogoon ni sama côté ngay fa yow wér nga est yaa ngi dégg li ngay wax man ma faral la jàppal na bis bu ma la faralee sooy lim say noon nag ma ci boole. waaw ah, naa dinaa ko def. fayal de man mii di ndeyam yarewuma ko noonu te yaakaar gi ñaari yaakaar yu tas la ndax ni ma la sëyali ci kër gi. man nga ma témoin ndax doxuma lu dul loo bëgg ak say waaw bàyyi say tere dafay maa moom doo nga nekkoon ci kër gi kon waroon na xool ci ndeyam ji li mu dund mu doxale noonu mais bett na ma torop dama bëgg nga xam ne guy dina jur gattax ba tax na sër bu weexu kër gi nga xam ne sëy nga ko sëy bu rafet fayal tuuti na ngir gàqal ko man mii di bàyyam gërëm naa la ba noppi fayal dafa fàtte ne doom mooy seetu bu ñuy gisee ay jëfu ndeyam waaye du suñu doom ci man nag jël naa décision fayal booleetuma ko si doom yi ma jur

Ah, sim. Rola. Dorma bis bu ma sa loxo dalee dootoo ko defati. wuy oh, ma Bebe, doo indi commande bi bépp. doo Bebe. match tey. bépp benn match Barça. déedéet. Barça Real classico. yow man maay sa match déggoo ma. damay dem sa kër Tapi ini man duma sa match. damay dem sa kër papa dama jox ko. ayya. lan la. Oh. lan la. sama hmm, tànk oh bébé li moo tax waruñoo di fooyee teman tamit quoi. xaaral ma

lay garaaw man man seetaan du ma match. moo gën de. seetaan jëlal lii yëpp nga teg ko yow yaay sama match yaay sama Barça yaay sama Real. ah kon baax na. Ligue des champions. FIFA coupe du monde bi mu war a organiser. coupe d'Afrique bi yooyu yëpp jël naa ko jox naa la. yii loolu rëy na. léegi jox naa la ko loolu rëy na. dara dootu la métti n'est-ce pas. man kay nii dara méttiw ma. kontaan naa si match bi rek lay ba. xoolal li <laughs> ah, ma ñàkkee. xanaa gis nga mon état physique ne me permet pas de faire certains mouvements te yaa ngi ma koy defloo. bëgguma nga def dara dégg hmm. moo tax bëgguma dara. tuuti desoon nga jooy de. non dama doon jooy commencé naa xam nga man dama laa nopp bëgguma dara euh, euh, dara metti la. dama laa kii bokk. keroog gis naa la nga doon def ay mouvement yu neex yooyu ak sa gauche bi dugal defal ma ci benn. bébé fekk yooyu pour ba cëkk man li may répété yëpp pour guddi la. non non non man moom guddi moom moo mat dara. Ah! yow guddi temps yi guddi gi dafa yàgg. bébé samay pas de danse moom guddi nga ko mën a gis. waaye léegi defal ma ko fii léegi. non non li ma la wax xel a koy mottali. xam nga wooy boobu Youssou naan wuuy wuuy sama ndey wuuy ay yooyu ndaw bi dina ma rey doomu paakale ñaan bi dina ma rey yow la ma naral. ah li ma la naral ëpp na waaye dugal sax ñu. yàlla bu guddi jot. Ah, ah. yàlla bu guddi jot dama tooti kooti. waay. Vaya cutillo. Coti, coti. Yoli, yoli. Coti, coti. Yoli, yoli. Coti, coti. Yoli, yoli. wow. wow. Wow, wow. booy jaaxle rek te yow sama doomu ndey nga sama xarit nga mais nag man situation yi ma nekk man xawma ma ko sa copine fayal dafa ma jaaxal joxuma ma lekk joxatuma ma naan mu xëy benn suba teel rek

ay hi gis gisa man problème yi dama cee sonn samay appel man ak yow laa bëgg mu dàq suñu relation mu yam fi la mooy suñu relation mu yam fi gis nga Aïcha li may dund jamono ji man kese maa ko xam nga sam nga xamante ni mësul xalaat dóor ma bu demee ba yëkkati loxoom di ko bëgg a teg sama kaw wala joxatuma sama jëkkër mu lekk joxatuma ko mu naan nga xamante ni yaa problème. franchement parler bu ma sañoon moom suñu relation dañ koy dagg. loo wax mu ne la Aïcha suy génn duma tàggu su ñëwee foo demoon mu ne si Aïcha doom day man jaaxle na bi ci mujj bi may wàcc di dugg ci biir kër gi dégg leen Aïcha naan ko defal li ma la wax mu naan dinaa ko def lolou moy mi ngi ba tay pour yak sama digënd ak moom bu melni ni Aïcha moo yor sama cœur moy manipuler sama jaman affaire bi jaxal na ma trop masa masa man dama lay xaw mere ci ben côté ndax gis nga Aïcha bi mi wax lolou war won kër gi

bul nangu kenn di foye sa ménage parce que li ngay sa kër yow ak sa jabar yeen ñaar la concerné ay fayal fayal man yow la am man soma baye kan la fan la jëm man awma kenn ku dul yow man yow la xam yow la min yow la bëgg soma baye bàyyee fan laa jëm yow bu sama relation ak yow pour mu arrêter fi day yomb torop yow li nga ma xamal ak man li ma la xamal ñi bëgg ko fee dagg nii loolu mënul nekk. lii ay Aïcha baax na gis nga li may dund dafa metti te aw ma ku ma siy waxaat. mais wax ko Moussa. Moussa yow nit nga. Moussa ak sama jëkkër ni ñu mel lu yendu ci musaa rekk fanaan ci sama jëkkër nga naan ma wax ko Moussa. Fayal li ma la xamal ba suturaal la gëm naa ni su ma ko soo ko waxee Moussa dina la suturaal. nangu kenn ñew jóge ci all bi di am lenn lu muy wax nga tek ci sa bët mënoo ko mais dama lay wax dara Aïcha Aïcha xam kan moy papa. papa xam nga man bëgguma problème tamit tak, tax. c'est vrai ku la xam xam na ni do nitu ciow te do ko def bu la doon waxal leneen ak leneen du yow yaay taxaw nan ko c'est-à-dire c'est parce que xam na non waye man. sa doomu ndey bul am lenn lu lay jaaxal ci Aïcha ay mbiram dinaa ko lijjanti su ma la ko waxee rek nga gëm <laughs> Aïcha Aïcha dina xam kan mooy papa